221. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et rek mooy Pape Seck Touba Couture la waaye appel ki nga xam ne rek euh, mooy ki nga xam ne mooy Amary Makeup ñu fekk si fi ndaanaan ku li fàttali kenn dootu ko présenté ci biir réew mi mooy ki nga xam ne rek mooy Mame Bassine Thiam Mame Bassine nuyu nañ la jàmm maa ci jàmm boobu li nga xam ne rek mooy Ajibo Daylife muy cent quarante-quatrième e édition sa xarit sa frère waaye sa sœur nga xam ne rek mooy Amary Makeup ñu woote ko bi nga xam mooy bés Seydina Limaamu Laay waaw loolu kontaan parce que tarix yëpp benn lañ barki démb lañ di Touba ci Kazu Rajab si suñu am di ab sa chéri Pape Seck euh, def ko ànd ci rakkam bi Amary Makeup borom Pikine tabaarikàlla bi ñu def lu ñëw wuy si leen tabaarikàlla accompagné leen ci jour ci bés bi loolu rek moo ko waral waaw. loolu rek moo ko waral comme ni ma ko waxee ku ci nekk bàyyi li nga jàppoon ñëw wuy si lii nii sa diggante ak noo koy def am na def moo tax Pape Seck moom ah depuis ci Pape Diouf sama jéeg base chez ma koy nuyu di passage donc su xewlee tey jéegam yi tey def lii duñ def lu ñu ñëw pour si leen parce que jàmm lañ sekk ak moom jabaram ji ak sa sama xarit la waaye rawatina ñaareelam bi toog di ndax xale ko tabaarikàlla suñ bëggee defar dañu dem salon mu defal ñu gratuit boole bi ñu nangi nangal di ñu wax lu neex di def ñu ànd ñu ko jëkkër buñ def ñu ñëw dooleel si leen parce que koo xamul noo koy def na la defar tax looloo allah koo xamul noo koy def nan la defa tax waaye ku wax Mame Bassine xam ni sa palmarès 100 pour cent positif la macha allah sama cat ak sama catu morom koo wax Mame Bassine mu ne dama ko naw ci jikkoom ak dama ko ci diiñam ndax def na li muy dafa pare quarante de resam dara ñaaw ci tubaarkàlla di ñaan yàlla mu yokku mais boo waxee Mame Bass ni àdduna yëpp sépp ni dafa baax doo mag donte mais da nekk mag boo xam ni xale yaa leen jiitu ci bi di leen jiboole di leen digal lu baax di leen geeral geer boo xam ne geer bu baax la defeel nii waxeel ni solol lii boo demee fii am ndam waaw loolu sama wareef la parce que xale moom bu loxoom sotee rek mën a ko koy mag ñoom ñëpp samay raq la rek respect bi ñu ma jox aussi yàlla bu ko yàlla gaaw a dindi cër bi ñu ma rek laa leen di jox xam nañ ne maa leen mag ci aar jiitu ma ci ñu jox ma cër bi lu ci waay jàpp su ma nee la nga bàyyi kon donc ñoom laay remercier ñoom ñi ma def loolu donc dama jug ci di def loolu su ma gisee ñaan yoo xam ne ñaga see ma dox ci tànk jullit tànk jàmm pour ñu nekkaat ci jàmm du tee maa ngi liggéey sama liggéey maa ngi béy sama waar tabaarikal li ma mel na lu dara moo koy dindi dëgg ba ma juddoo tey maa manqué sama empreinte ah sama palmarès macha allah comme ni nga ko waxee donc duma jug ci loolu mais xale sama rakk lañ samay nit lañ ku ci ñagas def ñagas naa ñu ko yow loolu ñu ma may nag maa ngi ñaan yàlla yàq nañ am nañ respect ci man yëg ma fonk nañ ma jox nañ ma cër respecté nañ ma kon donc loolu dama ci kontaan vraiment. macha allah respecté nañ la xale yëpp say say rakk la ñoom ñun gis nañu mais foo gisee ku la bëgg rek boo gis kenn ku la bëgg gar naa daw ba dee ngir ki la waroon a bëgg te bëgg la du dëgg tey foog naa ni fu yaw a yow fu mu toll du man du man àggu fa am na ñoo xam ne mam baasi neexu leen te du leen neex ba abadan daay man waaye ñi la bëgg dañoo bari te ñu lay xeex la dañoo bari tey boo gisee ñenn nit ñi di commentaire commentaire yi négatif ay nangam nga baal ma ci kàddu bi saytaane la wala nangam sangam xamuñu la lan ngay wax ñooñu waaw seen xel toll nit moom ni sa xel toll noonu ngay taxee xam xam ko ci personnalité liggéey nekk naa ci aar ba ni ma bàyyee amul dara loo xam ne mën na ma cee waxal kenn du ma wax lu ñaaw dëkk bi nag moo jaxasoo ak ku nekk ñu la bëgg am na ñu la bëgg am na ñu la bañ waaye jëlee man pour man kenn bañu ma ñëpp ma bëgg man ñëpp ma bëgg ñëpp samay nit la parce que jàmm laa sikk ñoom duñ ma gis du ma leen gis parce que milieu yu bari du ma fa dem sama liggéey laa sama life sama pare dem naa gérer sama mariage du moo loolu àdduna moo toddee noonu kontaan naa merci beaucoup <laughs> Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et rek mooy Pape Seck Touba Couture la waaye appel ki nga xam ne rek euh, mooy ki nga xam ne mooy Amary Makeup ñu fekk si fi ndaanaan ku li fàttali kenn dootu ko présenté ci biir réew mi muy ki nga xam ne rek mooy Mame Bassine Thiam Mame Bassine nuyu nañ la. xëy ñu nekk ci li nga xam ne rek mooy Ajibo Daay Laay muy 144e édition sa xarit sa frère waaye sa sœur ki nga xam ne rek mooy Amary Makeup ñu woote ko biir Yoff Laayeen di màggal bés bi nga xam mooy bés Seydina Limaamu Laay waaw loolu kontaan parce que tarixe yëpp benn lañ barki démb lañ jóge Touba ci Kazu Rajab màggal Sëñ bi ay Ajibo woote lu ñëw wuy si suñu am di ab sa chéri Pape Seck euh, def ko ànd ci rakkam bi ëmmari mekk borom Pikine tabaarikàlla bi ñu ñëw si leen tabaarikàlla accompagné leen ci jour ci bés bi loolu rek moo ko waral waaw. loolu rek moo ko waral comme li nga jàppoon ñëw wuy si lii nii sa diggante ak ñoom Pape Seck. waaw xamul noo koy def am na def moo tax Pape dañuy yàgg ak moom. ah depuis ci Pape Diouf ba tey tabaarikàlla ma fekk sama jigéen Pébas chéri Pape Diouf. ma koy nuyu passage donc su xewlee tey jéegam yi tey def lii duñ def li ñu ñëw pour wuyu si leen parce que jàmm lañ sekk ak moom jabaram bi ak sa sama xarit la waaye rawatina ñaari lam bi toog di ëmmat yi nga xamante ne tabaarikàlla suñ bëggee defar dañu leen salon mu defal ñu gratuit boole bi ñu mel ne di ñu wax lu neex di def ñu ànd ñu ànd yaa ci salon ba kon donc tey buñ defee ni ko jëkkër buñ def ñu ñëw dooleel si wuy si parce que koo xamul noo ko def na ma di xam tax looloo tax ñu ñëw ci bés macha allah koo xamul no koy def nan la dafa tax waaye ku wax Mame xam ni sa palmarès 100 pour cent positif la macha allah sama cat ak sama catu morom koo wax Mame mu ne dama ko ci jikkoom ak dama ko ci diiñam ndax def na li muy dafa pare quarante de sam dara ñaaw ci tabaarkalla di ñaan yàlla mu yokku mais boo waxee Mame Bassine àdduna yëpp sépp ni dafa baax doo mag donte mais da nekk mag boo xam ni xale yaa leen jiitu ci milieu showbiz bi di leen jubóole di leen digal lu baax di leen geeral geer boo xam ne geer bu baax la defeel nii waxeel ni solol lii boo demee fii am ndam waaw loolu sama wareef la parce que xale moom bu loxoom sa tee rek mën a la rek respect bi ñu ma jox jox leen di jox xam ma cër bi lu ci waay jàpp su ma ne ñu ma def loolu donc dama jug ci di def loolu su ma gisee ñaan yoo xam ne ñagasee nañ ma dox ci tànk jullit tànk jàmm ñu nekkaat ci jàmm du tee maa ngi liggéey maa sama liggéey maa ngi béy sama waar tabaarikal li ma mel na du dara moo koy dindi dëgg ba ma juddoo tey maa manqué sama empreinte ah sama palmarès macha allah comme ni nga ko waxee donc duma jug ci loolu mais xale sama rakk lañ samay nit lañ ku ci ñagas def ñagas naa ñu ko yow loolu ñu ma may na maa ngi ñaan yàlla yàq nañ ko yàlla am nañ respect ci man yëg nañ ma fonk nañ ma jox ma cër respecté nañ ma kon loolu dama ciy kontaan vraiment macha allah respecté nañ la xale yëpp say say rakk la ñoom ñun gis nañu mais foo gisee ku la bëgg rek boo gis kenn ku la bëgg gar naa daw ba dee ngir ki la waroon a bëgg te bëgg la du dëgg tey euh, foog naa ni fu mu toll du man du man fa am na ñoo xam ne mam baasi neexu leen te du leen neex ba abadan daay man waaye ñi la bëgg dañoo bari te ñu lay xeex la dañoo bari tey boo gisee ni ñi di commentaire commentaire yi négatif ay nangam nga baal ma ci kàddu bi saytaane la wala nangam sangam te xamuñu la lan ngay wax ñooñu waaw seen xel toll nit moom ni sa xel toll noonu ngay doxee mais maam ku ko xam xam ko ci diiñ personnalité liggéey nekk naa ci aar ba ni ma bàyyee amul dara loo na ma cee waxal kenn du ma wax lu ñaaw dëkk bi nag moo jaxasoo ak ku nekk ñu la bëgg am na ñu la bëgg am na ñu la bañ waaye jëlee man pour man kenn bañu ma ñëpp ma bëgg man ñëpp ma bëgg ñëpp samay nit laa sikk ak ñoom duñ ma gis du ma leen gis parce que milieu yu bari du ma fa dem sama liggéey laa sama life sama pare dem naa gérer sama mariage du dégg loolu àdduna moo toddee noonu kontaan naa merci beaucoup <laughs> Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et